संगत istighfarina allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kooku mooy tey di istighfar ki nga xam ne yonent ma ne ku ko koy jàng boo dee ca bis ba demal jànn te duñ la laaj dara ku jant so nga jàng ko boo dee ca guddi ga daga demal jànn te duñ la laaj dara waaw kooku itam waaw lu mat a toqalal waaw mooy sayyidul istighfar rek yonent ne texe ñeel na koo xam ne fekk nañ ci téeréem ay astaghfirullah yu bari waaw nga wax ne ku balu yàlla baal la jaamu dala mooy ne yàlla yàlla ma baal maa sama jaam bi tooñ na xam ne am na borom du bale bakkaar wala mu di ko topp waaw balu na baal naa ko mu del bakkaar yàlla baal na sama jaam bi tooñ na yàlla xam ne am na borom bala ma baal na baal naa la duma dañ la baale sama jaam bi féer yàlla ma balu waaw